Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf ab ànd neex na loolu waaye koo bàyyi mu dem ak i waggam gi di wax feeñ na ci diggante yi Idrissa Seck ak Macky l'observateur xëy di xibaar ne kii di Idrissa Seck ginnaaw bi mu ne dafay doon candidat ci élection présidentielle yu 2024 génn ci mois présidentielle bi ba yóbbaale ministre ya mu amoon ci gouvernement bi di Aly Saleh ak Yankhoba Diattara njiit réew mi Macky moom it def na démb ab décret sport beeg élawage bi dénk ndéegum ko premier ministre Amadou Ba Sud Quotidien moom it ñi wàtt ci xëtamu njëkk li mu bind moo di ginnaaw bi ànd bi dakkee ci diggante Macky Sall ak Idrissa Seck conseil économique social ak environnemental gi Idrissa Seck jiite woon teere ji na ca loxoy Abdoulaye Daouda Diallo soleil national nañu président national di Macky Sall def na ñaari jooyandi ci ñaari institution yi mu di ca conseil économique social ak bi le témoigné i continuer yéenekaay bi di la mi ngi ñuy xamal it ne moom Macky Sall ab àndandoom bu mu yàgg àndal mu yàgg koo guddil yàgg koo bëccël di Abdoulaye Daouda Diallo moom la jël yóbbu ko a dooleel direct ci news moom gis te lu raw loolu Amadou Ba di ñu ko wax ci xëtamu njëkk Idrissa Seck mi dem ba muy démissionné lettre bi mu bind am na lenn lu ci journal L'As xëy indi ci xëtamu njëkk mu di li mu ne Macky Sall sa wéjur wu jigéen wa ajaratu Kumba Timbo rahmatullah alayha dinaa ne ko liggéey nga bu baax Macky Sall mi mu ko wax moo nekk ci xët mu njëkk journal Bës Bi Le Jour ma nga fa karawaatu fa yore balam dital départ bu Idrissa Seck nomination bi am ci conseil économique a compliqué li ci moom ndax ñoo ngi jëm ci tabaski buñ ca noppee ñoo ngi jëm ci coupe d'Afrique bu ko bëggee lijjanti moom premier ministre Amadou Ba bëgg a lijjanti poste premier ministre bu muy amee bu boobaa aw yaramam du ko fekkee réew mi dina ko yëg ndax nit mënuta war mbaam war giléem giléem ci biiri bay ba bay ci biiri giléem bu mu ci mën di doon mënees na ko méngale ak situation Idrissa Seck ci biir opposition bi la tribune nañu moom daamal Kajoor perte ba xalangu la def ndax jóge na ci wumas présidentielle bi ministre yi mu amoon ci gouvernement bi dàq nañu leen fa mu fa bu jëm mu di ci opposition ba ñam fay fekk tàmbali ko kon moom Idrissa Seck tribune gis na ne pexe yaa ngi bëgg a yàqu ci loxom li mu ne mooy chef de l'opposition l'observateur ne nañu bu ko doonee it wéet na ca Vox Populi xëy ñu ci xëtamu njëkk li Ousmane Sonko tontu Idrissa Seck ci li mu ne mooy chef de l'opposition ciw léebu wu ñuy faral di jëfandikoo ca Côte d'Ivoire ca woowee ca la Ousmane Sonko jaare ngir tontu Idrissa Seck ndax dane ko ca Côte li ñuy faral di wax mooy xar yépp kan mooy chef kan moo ci topp ak kanoy surga bi journal lay nañu moom président bu parti Pastef di Ousmane Sonko loolee mi ngi ko wax ci kaw nemmeeku tuur yi mu tàmbaliwaat dafa la waxeet ne Macky Sall na xam ne suñu bokkul ci élection présidentielle yu yi ay élection du am ci réew mi Ousmane Sonko ne ñun jàmm la bëgg jàmm la ñaan ku ñu may jàmm nekk ci jàmm ku ñu xañ jàmm doo am jàmm mu njaay siisee njiital ONG 3D ci xët mu njëkk Source ma nga Sall wootewaat bu yàggul bu yàggul ñoo ngi doon dégg coow la amoon ca Ngor te ñu bari ci xamuñu li ko waral enquête dina mi ngi ñu koy xamal bil yéene bi au commandement de la gendarmerie moo jël dogalub toxal gendarmerie bu Ngor ndax fa gendarmerie ba nekk dafay taa mairie bu Ngor ak gendarmerie yéene bi nee nañu seen déggoo bu njëkk ci boobi la ponk ci weeru août fa ñu bëgg a tabax gendarmerie ba terrain ba mairie bi moomu ko état bee ko moom lu toll ne tarfatal ay ni abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir door su nekk yu wér te wóor aju ci réew ci bitim réew